suñu loxo yi ca kaw ala nabi wa alayhim ajmaina salaama rabbina mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar waaye di jiital ci nuyoo bi alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour yàlla yàlla guddal fanam may ko wér ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp ñu ngi leen di ziara waaye fépp fi nga xam ne waaye nekk na fa di seetaan chaîne bi di Tivaouane 24 TV jàppal ni fekk nañ la fa nga nekk jox la sa loxo jox la sunu loxo xol ni la euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye di kontaan ci ànd gi ak gi ngeen di seetaan chaîne bi di Tivaouane 24 TV wax ni tey fa tabaarakallaa ngi doon demaloon fële ca grande mosquée bu Dakar li ko waral mooy collectif de fonds euh, contribution bi nga xamante ni euh, al imam alhaaji imam imaam Alioune Moussa sàmb moom mi nga xam ne moom mooy euh, imaam Grande Mosquée bu Dakar fa tabarakallah tey jii moom moo woote woon li nga xamante ni moo di collective de fonds euh, muy contribution euh, bi nga xam ni ma ngi koy def fële ca Grande Mosquée bu Tivaouane fa tabarakallah fu nekk nag mbooloo jóge woon fa wuy ko tey doon na leen ko jox direct naka noonu tamit xadara bi nga xam ni amoon na fa yéen ko doon am fii ci Tivaouane 24 TV kon loolu mbégte la. tabarakallah fu nekk nit jóge na fa ñëw ki nga xamante ni di imam Alioune musa Samb ndax ñun taxaw nañ fa ak benn nit boo xam ko sax ci interview bu ngeen duggee ci direct bi di ngeen ko gis foofu mu ni moom ma nga jóge ba Mbambilor ñëw fekke si li nga xamante ni moo di euh, julli jumaa bi waaye euh, dugal li nga xam ne di ci grande mosquée bu waaye jaarale ko ci woote gi nga xamante ni imam Alioune Moussa Samb woote na ko mbokk yi euh, du lu ndaw ndax imaam tey bari na ñum jox opportunité ñoo xam ni ñëw nañ dugal seen njaq ci liggéey bi euh, lu ko waral woo gim leen woo bëri na xam ne bitim réew lañ nekk dugal nañ seen contribution li ko waral mooy woote gi nga xam ni imaam woote na ko ku def lu baax nag moom balaa kenn amu yiw moom yow mi ko woote yaa njëkk amu yiw kon fa tabaarakallaa xol yëpp sedd nañ waaye tamit la nga xamante ni imaam dajal na ko ci ay koppar mbokk yi fa tabaarakallaa ngeen gis eh, mam alpha bu mam abdul aziz Dabah, eh, ñëwoon teew fa ci turu eh, xalifa bi ci turu nur Asunia, muy Kurel gi nga xam ne ñoom la xalifa bi dénk liggéeyub grande mosquée bu tabarakallah mam Alfa ak délégation bi nga xam ni àndoon naag naka noonu ci ngoon gi amal nañ fa benn xadara bu rëy rëy ci njiital fata sar bi nga xam ni moom mooy di amna adara tijaaniya fa tabaarakallaahu ñu amal fa benn wasifa waaye tamit def fa xadara bu ama am solo da ko doon tamit koppar yéen fa dajal daal gën a takku lool macha allah kawe nañ jortu liñ yaakaaroon ndax imaam ñu fàttali leen ni moom avant lii chaque àjjuma euh, maam Alpha Sy fàttali waan na ko mbooloo ma fa teewoon dina leen chaque vendredi imaam dafay dajale deux millions cinq ci ay pens mooy li jëm si jumaa ji kon moom imaam yàgg nay liggéey lii. loolu dafa jaar di leeral baax a baax imam yàgg nay def lii ci kenn yëgu ko waaw parce que ñun yi di wax toog na nañ euh, sëwee Seydil Hadji maale bi nekk dakaar euh, grand sëriñ bu dakaar moom bi nga xam ne teewoon na ca ndaje ma ni tey jii sax ca euh, grande te teewoon na fa mu jël micro bi ñëpp di ko dégg mu ni ci loolu moom sax ci la nangoo kàddu gi mu ni chaque semaine imam bi dina la jël tollu ci deux millions cinq cent ci ay pins kon tey jii bu ko mbooloo bi yëpp wuysee fu nekk nit jóge fa ñëw ñu dajale somb toll ci euh, comme ni ñu ko waxee sànq euh, ginnaaw bi nga xam ne julli leen gee ba pare euh, li nga xamante ni dajaleen ko fa ginnaaw li nga xam ni moo jóge ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ni ñoom ñoo doon def challenge bi ñoom it dajale nañ lu takkoo takku naka noonu waa TikTok bi ñoom it indi lu tollu ci deux cent cinquante mille ak feneen ak feneen foo xam daal dafa jóge bëri na lépp lépp biñ ko boolee liñ xamle mooy dajale lu toll 35 millions 635 mille francs jàpp leen ko 35 millions 635 mille francs mbokk yi loolu mi ngi am jaar ci turu imam Alioune Moussa Samb loolu teraanga ju ko yàlla defal la joo xam ne du fay mukk ba ilaa yow mi diin euh, bi ñu liggéey grande mosquée bu bi ñu liggéey grande mosquée bu Tivaouane bi imam Alioune Moussa Samb woote woon na collectif de fonds ci grande mosquée bu Dakar dajale fa lu toll ci trente cinq millions six cent trente cinq mille yàlla ko yàlla fay yiw imaam ñu ngi lay ñaanal yàlla la yàlla fay yiw nga yàgg jiite mbooloo bi yàlla yàggal sa waaye dëgëral la ba yéene ji nga am ngir liggéeyal lislaam yàlla suñu borom eh, yombalal la ko incha allah eh, ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax waaye tey képp ku teewoon foofu ca grande mosquée rek sab xol sedd na fa tabarakallah maam Alpha bu maam Abdoul Aziz Sy baax eh, teew fa jël fa kàddu fa tabaarakallah euh, waxtaan ak mbooloo mi waaye solos euh, contribu bi contribu maam solos joxe ci liggéey yàlla fa tabaarakallah maam maam maam euh, Pape Makhtar Kébé moom it bi mu jëlee kàddu gi moom moo tëj moom moo def li nga xam ne moo di discours de la fin moom moom moo tëj ci turu maam Alpha Sy Dabakh moom moo ko joxoon kàddu gi Pape Makhtar Kébé moom it def fa waxtaan bu am am solo incha allah dina leen ko dugalal léegi ndax loolu dafa fekkoon direct bi dagg euh, waaye euh, waxtaan bu ama am solo la boo xam ni Pape Makhtar Kébé mii euh, def na ko fa te daal fépp fu waay jóge woon ñëw fa rek sa xol sedd da gis sax ñoo xam ni dañuy jël dix mille francs bëgg a joxe mille francs yi ni ñoom dañuy joxe neuf mille yi pour seen njaboot ay neuf mille pour sama pour sama pour sama pour sama pour sama pour sama loolu yëpp maam dafay wone xir rek xir rek gun am ci ci ci ci ci ci njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick fa tabarakallah ci loolu it yaakaar nekkul li nga xamante ni lu ndaw la waaye tey jii képp ki nga xamante ni euh, ñëwoon nga fa rek euh, sa xel demaat na euh, Tiwaawan tax mbokki taalibe daja fa dajale seen njaq loo xam ni ci liggéeyam Grande Mosquée bu Tiwaawan bala jëm fa tabarakallah loolu lu ama am solo la aussi tamit lu neex la daal tey daal bégte la woon ak bànneex foofu ca Grande Mosquée bu Dakar fa tabaarakallah imaam woote woon fa moom sax jël na kàddu gi waaye lam fa wax euh, bëriwul euh, dafa tënk rek daal sant gërëm mbooloo mi nga xam ne maanaam bëri na sax ñoo xam ne dañoo ñëwoon di ko décorer fa tabaarakallah di ko jox ay parfum ndax imaam li mu def nii dafa rëy de imaam li mu def nii nii dafa rëy 35 millions euh, loolu de wax dëgg yàlla yaatu na lool de yaatu na lool yàlla yàlla fay ko yiw yàlla yàlla fay ko yiw yàlla yàlla dëgëral ko waaye tamit ñi ngi ñaanal képp ki nga xamante ni def nga ca rek wala nga amoon yéene def ca rek yàlla yàlla fay la euh, sant nañ ñëpp daal euh, gërëm nañ ñëpp waaye nag euh, ñi ngi sant bu baax di beralu cant nag kii di Habiba Habiba borom Habiba TV fa tabarakallah muy ku baax tey ñu fekk ko foofu mu jàpp ci liggéey bi bu baax a baax jiitu ñu ci affaire yi nekk seen jaati gi waaye tamit ànd ak ñun bokk ak ñun liggéey bi daal loolu Euh, mbégte la ci ñun bu baax a baax a baax moom sunu waaye la yàgg na xamante euh, ku baax la daal yàlla yàlla fay ko sëñ Habib baax ñu ngi lay euh, ziar baax waaye di ziar xaaji Wilane borom Wilane TV moom it tey nekk foon waaye ñoo ko fa wuutu woon mbégte la ak contentement bu baax a baax yéen di leen gis dajeeg yéen ci ay ci ay ci ay ndaje loolu daf ñuy encouragé baax a baax kon ñi ngi seen ginnaaw lu ngeen wax rek loolu lay def incha allah. Eh, ku ci mel ni xaaji wilaan moom des fois del lay woo téléphone sax eh, naa la deel defee nii defee lii defee lii defee lii nii eh, fa tabarakallah muy loo xam ne daal ko bokk waaw ñëpp ko liggéey bi ñun ñor waaw ñun 24 TV lenn rek ñor muy xadara bi rawatina kër Cheikh Seydil Hadji Malick fa tabarakallah kon daal ñu ngi sant di gërëm ñëpp di ñaan imam Alioune musa Samb yàlla yàlla sambu ko yàlla yàlla ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, jërë ngeen jëf ci ànd beeg ci T24 TV wéy di abonné wu fii euh, ndax soutenir li nga xam ne moo di chaîne bi euh, jërë ngeen jëf ala nabi wa alayhi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 سن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي